te ñu leen fàttali ñu ngi fii si seen émission car rapide. Mm-hmm. Euh, fi la ñuy traité yi di ko tong tong. Mm-hmm. ki ma gis di image bi ne saa yi sama copain la xaram xaram xurum xaram xaram nu mu ko mënee bi tax na karim karim xurum. moom rek lan a porter plainte. karim xurum xaax waaw karim xurum xaq waaw. moom moom moom problème bu jàmb sax di tax boobu <laughs> moom problème jàmb sa di tax la am problème jàmb sa di tax fi mu toll moom moom pétition yaa ngi daw nee nañu def pétition dañuy dañuy dañuy clip bu jeebaa bi. mooy bi jàmb sa jàmb sa di tax boobu nee na dañ dañ ciy porter plainte parce que lan clip bi ñaaw na woy bi ñaaw na loolu Karim xurum xaax wax. xam nga moom dèjà xom ñu ngi ko tuddee Karim muy xuuxaax lu muy xuuxaax. xuuxaax wala xurum xaax. lu mu ci munti am rek xam nga lan mooy wax ji gis nga euh, Sénégal gi ñu nekk. Mm-hmm. liñ fi war a lijjanti dafa bëri. Mm-hmm. moom tey bu génnoon comme ni ko Uli waxee bu génnoon ci dundu gu seet gi. Mm-hmm. mu ni nan ànd ñun suñu mouvement boobu ñoom ñu yor mhm. Mhm. nan def suñu délégation mhm. dem ci borom commerçant yi dem ci boutiquiers yi ñu xool li ñuy def ci askan bi ndax jaadu na yoon wala jaadu boobaa ñëpp a koy appuyer bu xooloon ni dëkk bi metti gi mu metti mu ni nan jóg dox ci bu xooloon xale yu góor yi ni ñuy def xale jigéen ci lu bon mu jóg dox ci waaye amul lu mu def xale bu ndaw di way woyam ñi ko gën a garaaw fe fecckat yaa ko gën a bon fuuf ni ni feccee te ñu ngi si chaque jour nit bu nit waykat génnee clip ñu fe seeni fer ba mu aju sol seen baa mm-hmm. wondoo sër yu bon nekk ci télé bi di ngàppandi ko <laughs> a dem bari gis nga li ñu war porte plainte porte wu ko plainte na bàyyi doomu jàmm ci xale la